maa ngi fi Fati Mbaye. waaw dama bokkoon ci ñu demoon quarantaine. non tiitoon na tiituma parce que man saa su ne dama am ay kilifa te ñooñ lay ci ñooñ laay déglu muy ku ci mel ni Cheikh Ahmadou Kara Mbacké dama di taalibeem bokk ci ay njabootam te saa su ngi wax ci. feebar bi mais ba léegi mënuñu ko dégg moo tax tiituma biñ ñëwee ne ma suñu suñu kër am feebar bi dama santaat Serigne Touba bu wér santaat Serigne Touba santaat Serigne Touba santaat sama Serigne Cheikh Ahmadou Kara parce que xam naa ni ci ki jokk moom rek bind na li nga xamante ne day chifaay bépp feebar moo tax tiituma tey yaa yi ni booy Medina yi hmm. moom maanaam dafa am ñu réew am ñoo xam ne réewuñu li am fii keroog suñu biir koñ umpul kenn mais ñun jëluñu ci. intention pour yàq wala pour sabote dañoo jóge quarantaine ñëw suñu koñ ñu ñuy teeru te loolu rek dafa rafet mais am na yeneen secteurs yi ñooñu dañ ci jëlee pour kaañoo pour yàq te ñun jublu ñu ci loolu ñun saa su ne ñu ngi sensibiliser jeunes yi xale yi ñëpp ñu ngi leen di sensibiliser. non nañ toog seen kër te bu ñu leen jàppee chifaay bi dal leen rek waaw bu ñu leen jàppee yet bi dal leen rek alkaati moom du bàyyi dóor waa quatre-vingt-cinq personnes yi ànd naa ci ànduma ci parce que boo déggee ma ne ànduma ci parce que mën nañ leen jàpp di leen teg lu metti mais tamit buñ leen jàppee nañ leen teg ay daan kese waaw loolu bu ñu ko defee dina rafet mais pas ñu jàpp leen di leen torturer waaw nañ leen tegay daan bu baax. am ah, masque mi ngi sama biir nekk non du ko takk nag su ma nekkee sama biir kër du ma ko takk man c'est Amadou Kara laa yaakaar déggoo lu mu la xanaa feebar du ma jaar fen waaw Jakaraa protège maanaam quoi <laughs> point.